asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi jàkkaarloog ñun duñu seetaan noo ngi amaat mbégte toog fii ci kanam maam Thierno Ibrahim moom sëriñ Cheikh Awa Balla moom maam Thierno Ibrahim rakki sëriñ Touba xaadimu rasool ja nga xam ne waxoon na ne sëriñ Touba du dégle le su ma nit Thierno Ibra Faati du dégg ci ndigalu sëriñ Touba lu mu jëfut moom lañ toog tey nag ci keppaaram gii nga xamante ne bii fala sëriñ Cheikh Awa toogoon daan liggéeyal sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mu di daarul mannaan mu fas yéene yëkkati ay kàddu yoo xam ne saa yu ndigal bàyyi ko ci sëriñ Tuubaa jaar ci kër maam Thierno Ibrahim borom daarul muxti rawatina sëriñ Abbas mii fi nekk toog fi toogaayu borom daaru muxti ñuy ñaan sun borom yàggal ko fi lool doole ak wéram alaaji maam Thierno dana yëkkatiwaat ay kàddu ngir laabiire jullit yi laabiire taalibe yi waaye nag soññiwaat leen soññi mbooleem ko aju ci sëriñ Cheikh Awa Balla ndigal loolu nag mooy kenn nattablu ne dégg ngeen kàddug sëriñ Touba Cheikh Mahmadul Muntaxa mu yëkkati ay kàddu jëme ko ci liggéeyub sëriñ Touba bii nga xam ne mooy université bu Touba waaye dégg ngeen itam kàdduy sëriñ Abbas Mbacke muy soññ mbooleem ko aju ci maam Thierno Ibrahima borom Daarul Muxti waaye sëriñ maam no musta jóg ci di soññee musta jóg di ñaaxe dox doxin woo xamante ne bii mooy fa way juram ya tegoon tànkam tege ci siraatal mustaqim di soñ mbollem ku ne ci ginnaawam motax mu fasiyene yekete ay kaddu jeme ko ci mbollem taalibe yeb ñun ñep ñu ma sa déglu alhaji mam cierno mam Serigne Cheikh abou Balla mam mam cierno ibrahim borom darul moti bismillahi samir alim العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم asalaamaaleykum yéen bokk jullit yeb yëpp yéen mbokk taalibe yeb yéen mbokk dëkkandoo yi ñoo ngi leen nuyu di nuyu jullit morom bu ànd ak yar ak teggin ak teral leen fas yéene jottali loo xam ne dinaa ko bokk seq ko te wet gi ma féete yàlla jiital ma ci ma fas yéene jiitu ci na ma ci war a jiitoo ànd ko ñi ma ko war a àndal di ci soññ sama bopp di ci soññ moo di ndigal yi nga xam ne jóge na ci kër Sëriñ Touba ci lamiñ Cheikh Mamadou Mountakha خليفة سنة عبد المريد جارت سرين أباس خليفة برامدا رمعتي لسن واجر لسن سرين جمسي شكر جي دي كر سيحة بالا وبتي جوحنا جي أين ديغل يأمن يوك ديغ أمن يوك ديغل تاني مبكو لير بباخ بني بيوكو ما دينا بقول نيب نفسيين سخ تواي تلا خمنا نولو نيارلو ديغلو نوكو تاقر نيجا بايو نيجا تياغن نونجا نيجا suñu bañ a waru bañ a war te fas yéene sax ci loolee loolu moo di sax ci ndigal borom ci jaamu ko ak ragal ko ak wattu ko ak fugloonte ay ndigalam tey daw ay tereem kem suñu kàttan ci def nu motulee ko suñu yéene kon baaxu suñu borom dina na di càppanteeg lu la ci des gannaaw loolu it li nga xam ne moo fi indi lii nu yor te doonuñ ci dara lu fekk yàlla taw fi xam ci rek ci ndimbalam ak yërmandeem muy sëñ Tuubaa mi nu yàlla xéewal te moo nu ko tànnal bopp mboole ci nu war ko sant yàlla bu baax te jàpp ci te ngoy ci te roy ñaa xam ne ñoon ci jox cër bii nu am te jëfaleen ko mayoon rawal na ci nag Cheikh Ibrahima Faty mi nga xam ne moo doon par comme di joram ci jëfaliñam nga xam lu mu wax moom la ko wax moo jottali mbooloo lu mu jëf moom la ci jiit moo jottali mbooloo mi loolu dox ba agsi fii tey suñu waajur nekkoon fi sàmm ko toppante ko seen mag yu baax ya fi nekkoon di waa kër Seexul Xadim toppin mu rafet ñu sàmm ko téye ci diine ci ngor ci fulla ci fayda ci taalu bi ci pastif ba agsul ko suñu yàlla agsul ko suñu loxo tey loola it yàlla def na du sopp ko mu ko incha allah rawatina te nag jëwriñ ji ñu yàlla tànnal jëwriñ yi fi jaar yëpp kenn ku ci ne la ma leen daa wax laa ku yàlla seet bi def ko mu Sëriñ Tuubaa rek مرتنو كسك ورني تعملو نخسيات ورني تعملو نخيط لتعمل شيخ محمود مصفى باش شيخ سيد المحترمين الأكبر كدم كوتينا سجف نيب جسنوكو سباستف نيب جسنوكو صلى الله عليه وسلم شيخ محمود المنطقة مينة ليس نتعلم بب راوين تانا ذكر شيخ أبو بالا كنا ندير لوني خم يكتنوكو تبقى لو غير سرين بي لو كان مستو لو غير باقي شوف كان أقول من تعم باستيف te fas ko yéene ànd ak moom ànden bu rafet te def ci fulla fayda ak jom bala séenu ci ñun lépp mu ci lu këpp loolu nag du lu ñuy wax lu ñuy jëf la jataay bi nag bala ma àgg ci li ma tax a jóg am na lu ci waroon a feeñ te feeñëw ci jataay bi moom laa doon bëgg a leeral moo di ñoo bokkal kër gii ñu sama doomi sëriñ di samay sëriñ di samay jëwriñ di jëwriñ Cheikh Abala mu Cheikh Mamadou Makhtar mi nga xam ne mooy jëwriñu kër gi ak Cheikh Ateex أكثر محمود المحفوظ أكثر أحمد الكريم أكثر معمر نيوم نيوم غارة توفيتي هذه تحبوه ملن يقلوا ملن جتاي بلا بك لولا مودي دفع عمل ما الشعر تنيوم تيالا رك كتخ لولا نك كنت أغير مدوك الشعر دي نور ندي قتل ولا نجستل تمان فسويين يعني دفتيو يار در فسنا يلم يعني يوحل ميجف لب يالا يعني لنا خمنا موجم ممتا لولا نك مودي cant gu may jiital ci ñoom bala ma leen wax dara ndax fi sëñ bi jógee làqo ak tey mi ngi bëgg mat ab diir yàlla na fi gën a yàgg tan fekk ko tal ko waaye boobe ba léegi mosuma yëkkati dara ci kër Cheikh Obal loo xam ne du ñoom ñii bokk sëñ bi ñoo ca man ñoo ma ca man man sama bopp ñoo waxuma la tal bii loolu nag faaw ma seere ko ngir yàlla moo des gor walla ma dib jullit kon nag loolu maa ngi koy seeral taalibe yëpp di ko seeral bokk yëpp di ko seeral suñu kilifa yi di Cheikh Mamadou Mountakha ak sëñ Abbas li nga xam ne man de lu des ci man la des waaye samay rakk moom dara desul ci ñoom ndax fañ tegoon Cheikh Abbas lu fekk teg nañu fu këpp ndax li ma leen di teg ak li ma leen def la ak li ma leen di sant seen bay ci woon ci ak ñoom to ma li ma leen di rek def nañ ko defe nu ko ba jëli ba jéggi ko muy góor ñi muy jigéen ñi kon nag ceer ceer soos yi moom laa bëri ñu teew ma di ko wax ma leen gistal wala ndéggital ma di ko seet yàlla rek tax wala yëfal ala ma fi xam bi ma di ñaanal nag yàlla na yàlla sëmbatal seen barke baay ba ak ak baaxam ga ak diineem ji ak ngorom ga ak bàyyiram ba ak wërsëgam ba lépp yàlla na ko yàlla sëmbatal seen kaw ak seen i doom ak seen i sët ak seen i sëtaat ba kere yowmal xiyaamal akbar allahuma amin bi hurmati seex al xadim wa isatul maxdum sallallahu alayhi wa sallam loolu rek mooy loo mënul woon ñàkk a seere soo ko tàmbali wax bëgg nag takk boobu nu takk woon ak boobu boobu boobu nu bokk jom ci kër Cheikh Abdou ci lu koy yëkkati ak lu koy ak lu koy taaral nu fas ko yéene dolli te takkuwaat te xam ne wolof ne borom gaynde mooy fi ne borom borom wëllu mooy fi teg gaynde kon nag sëñ Yoro Fati ku ne xam ne fa mu seeti woon Cheikh Ahmad Bamba kon loolu bu mu laal suuf mukk mooy suñu jom nañ ci teg suñu jom ma bëgg nag nga xam ne sas du dara lu soññee waaye gor su bu ne la nga wax bu dee dëgg ci digg sëñ Tuubaa saw sasu xol ak sax sasu xel te na nga man ta xam ko te yàlla xam ko moo ëpp doole lépp ma bëgg nag te sama bopp laa ko tàmbalee kenn ku ne nga def loo man ak loo mënul def loo daa def ak loo dul te yokk ko tam ci positif nga xam ne defalu ko kenn ku dul sa bopp yoon wi nag ki ko sos ci sart yi ko teg rek lay doxe tuuba li habdin muridin saadixin lahuma waaye nag bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaati mm-hmm. yettu yooyu ku ko woyofal rek da nga tudd murid waaye nekkatoo ci murid wala boog boo dee murid àggoo ci saa dex ga sëñ Tuubaa noonu nag dana fas yéene sëñ Abdoulaye waxoon fas nu yéeneem ci murid dana fas yéene doon ay saadex kon nag ma bëgg la nuy may loolee nu sax ci bu baax te góorgóorlu ci te fa te way ci ma bëgg na addee yëpp na fonkaat ko ku jotoon sas boo ca mën a dolli fukkam na nga ko dolli boo ca mën a dolli lu ko ëpp na nga ko ci dolli ku ko jot na nga sas sa bopp ci soxoon te xam ne yàlla moom xalimul xabiir la moom dara umb ko la nga denc soxal xam na ko la nga denc sagaal xam na ko bu la yàlla jaralee yàlla xam na bu la yàlla jarul yàlla xam te yàlla képpay fay kon nag nan teewal yàlla fi suñu bopp tam jaral nu ko la maam saxante waxoon kat moo moo mooy may ndam ba maa nekk soxla xadim maagam ji taddi sëriñam ba ba ba bëgg a xuus si lay ba maam sax xamul muy def mu ne fëri fi kanam ak taar ak ak sibdisem ko ak yéeram yu rafet yi da xala nga ba génn lay ba am ku mel ni ko mel ni koy xaw a yedd naa ko lii ngay defal ku koy defal sa doom bàyyi mu tontu ko na ci yàlla sëñ moom dara ump ko ba sëñ bi boo ko laaj ko ne kooku lu mu wax mu naka naka mu ne ko wax lu mu doon wax mu ko ah, daa mel ne ma xaw a yedd mu ne ko loo ko tontu nag mu ne ko da ko na ma mu ne ko xàkka ah, saa ginnaaw jaral na rek baax na waaye ah, jaral na ko waaye jaral na koy tey de ku ne kon nan ko sëñ Tuubaa jaral ko yàlla jaral tan bàyyi caaxaan yi te xam ne yoon wi kat barkeelul mayu ci la nga bëgg liggéey ci may la nga bëgg ñu doon jëf ak ñu doon barkeelu bokkuñu ko fay tey de te ku ne teg na sa bët la Cheikh Ibrahima Fall ba waxoon nag mooy dëgg nan na bu ñu demee ba si kanam daañu xam ñu jënd ak ñu may nan fa seen jënd nag jënd rek a wóor kon nag daa bëgg ñëpp takkuwaat di góor di jigéen di mag di ndaw kenn ku ne loo mën ak loo mën na ko fasoo te yàlla tax ak jëmmi sëñ Tuubaa te def sa jom ci liggéey bi te addiyee yëpp bëgg naa mu daje balaa la 30 avril incha allah rabbi fu waay mën a ci réew mi ak ci lii mooy sama ndigal ku dikk maa ngi si ku dikkul maa ngi si te it na ngeen xam ne Cheikh Abal doon daal di mukk nag damay dund man dara na miraas billaahi allahu akbar Cheikh Abal doon daal de kon nag booy bon takku buñ bëgg dara nan bëgg nga rëma seen tuwaar moom la Cheikh bi fa bëggoon ba lii nu fekk fekk na ci te defal duñ ko dara fekki woon ko liggéeyam bu baax bu barkeel ba yàlla nangoo te sëriñ ak ngërëmal sëriñ ba rek moon topp suñ bàyyi nekk ci loolu sàmm ko ci ngor ci jom ba jóge mu nekk suñuy doxa tey buñ xool dara bu buñ déglu dara nit ñi nekk jàkk ñoo bokk ñoo bokk fu ñu xëy ci ndey yeeg bàyyi waaye mosu ñoo bokk fu ñu jublu mosu ñoo bokk lu ñu wut mosu ñoo bokk nu ñu ko wute ñun nag lii ñuy wut nag ñan ñan ñan ko ñan ko ñoo ko indi suñu loxo nañ ko doon wutee rek mooy yoon buñ ko wàccee rek juum dañ ko fas yéene buñ ko wàcc mukk dañ fas yéene doon taalibe Sëñ Tuubaa te di saadax te di ko liggéeyal guddeeg bëccëg te yàlla tax te bañ caa séentu dara lu ngërëm ndax bu nu amee ngërëmal am ngërëmal yàlla am ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te teel a lépp na leneen lu mu doon sun yoon nekku ci kon nag lii rek laa bëggoon a woote moom laa bëggoon a wax koo xam ne kii ab taalibe nga bu nekk ci réew mi bu nekk ci bitim réew foo mën a nekk da nga ko dégg da nga ko yëg te yëgoogee sa yëgu xol nga ci sa digg sa borom moo kopp doole kon nag na ñëpp takkuwaat dafa siyéene jëf lu mat jëf nu dajale ko teg ko ci loxo Cheikh Mamadou Mountakha teg ko ci loxo sëñ Abbas mu teg ko ci ak lépp di ànd ak liggéey te it nu am jëm na ci kër Cheikh ba Balla gii xam na mooy suñu waar te bu booyee nu am gàcce suñu waaru gar wekkat du ci mukk te duñ ko teggi waaye nag suñu waaru bopp bii dan fa yéene mu bañ a booy te kon xam ne Cheikh Awa Balla jàmbaar la kon ku wuti jàmbaar ba bëggee nopp lu yaa sonn sa bopp te nit balaa doon balaa sonn dëgg dëgg ñu ne góor la ba dégg ñu ah diw góor la ba ko nag moo ngi soog a dugg ndax bu ne añ ah, ñu ne wu na bu bu aat ni ko ñu jot ko boo xasee bi wéyul rek fa xool ni sa kanam xool ni sa gannaaw ndax boo lay xool ni boo déglu ñu sa gannaaw seytaane jay la wala mu teq la wala wala mu wala mu taxaw loolu mbokk yi liggéey baa ngi noonu nee na kuy doxee doxiinu ku dem ma dem ku demul ma dem boo geestoo danga gis mboola mu bari sa ginnaaw soññe ba soññe jeex nag soññi sa bopp moo gën a wóor alxaaji maam Thierno dégg ngeen ko ci biir ay waxam nee na kenn ku ne yaa gën a xam la nga man la la sëñ Touba jaral yaa ko xamal sa bopp kon loolu mooy sas wi bala ñoo àgg ci la 30 avril fas na yéene moom miraas boppam ak lu ko nit ñi jox jébbal ko ki fi nekkal alaaji maam no mu jox ko ki fi nekkal Serigne Touba khadim rasoul ci liggéey bi nga xamne Serigne Touba moko ñaanalon bopam tam des fi ci aw nalam mo waxalon bopam bil mustafa li banaa madrasatan biha yazulul aza wal jahl wal kabad kon no ngi ñaan kep ku ci def dara yàlla yàlla fajj sa aajo bi barkeb serigne khadim ci daraje al imam Thierno Ibrahim borom darul muhti waye ci daraje sang bu tedd bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh